lay ziar léegi. maa ngi lay delloo ziar Babacar. am na jàmm. sant naa bu baax alhamdulilah. mu mel ni tey dikkaat ngeen ci li ngeen bëgg wala dikkaat nañ ci li ñu bëgg muy làmb suñu cosaan. waa dikkaat nañ ci li ñu bëgg làmb suñu cosaan. di ñaan yàlla suñu borom saison bi ñu tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabil alamin saison bi tey ubbi na démb góor production tëgg mu neex jag si tollanti ko tey mu mel ni boo xoolee Iba Mar ni ay amateur moo lay wan ne kon gars yi dañoo namoon làmb waaw ñëpp a namb làmb mbëri aussi loolu moom mooy seen liggéey promoteurs yi war nañ leen jaajëfal parce que ñoom ce sont des créateurs d'emploi ñu ngi jàppale jeunesse bi kon lii yaakaar naa ne ñëpp yaakamti woon nañ ko di ñaan yàlla rek mu defal ñu saison jàmm ak salaam. promoteurs yi yëngu ci wàllu simple loo leen di wax. waa di leen wax ñu gën a góor góorlu rek. te xam ne làmb ji ñoom mun nañ ko yóbbu fu nekk ndax boo seetloo fa daan doon fa doon teg ay drapeau ay sër dem ba yàgg ñu teg ay cinquante mille cent mille te ñuy wax ay millions yaakaar naa ne euh, promoteurs yi war nañ leen jaajëfal bu baax a baax a baax. ana rëg rëg. mu nga New York. mu ngi New York. mu ngi New York waaw. di préparé. waaw. dégg naa fan yi fan yi mu ne bàyyi na MMA bi wala da koy teg ba ci kanam ndax combat bi tax wala. waaw xam nga dafa nekk ne suñu lamb moom. dañ koo jox cër cër bu ñu ko jox wax dëgg yàlla ku ne xam na ne ñun duñu fooyee bés musuñoo fooyee lamb géew bi yaakaar naa ne xam na ko bu baax musu fee ñëw di fo musu fee ñëw di caaxaan ndax ñun yaruñ ko ci loolu kon loolu yaakaar naa ne moom mooy continuer rek incha rab rabi ci lambu dóor bi daal waaw xanaa adversaire bi da ngeen koo xaw a tiit wala non rëg moom xam naa yaakaaruma ne dana am ko muy tiital ci àddina moom luñ koy ñaanal yàlla lafal ko cat ñu ngi ñaan yàlla rek mu may ko mu yeggali ak sagoom waaw li ci kanam yëpp incha allahu rabi ay ndam la. guy gi jël naa ko jàpp na ne moom rëg-rëg dàqu koo bëree te ne rëg-rëg fi mu ko jëlee daa baaxul ci moom baaxul ci rëg-rëg loolu nu ngeen ko déggee. waaw rëg moom ak ko munti doon tey ci senegal moo ko dàqa bëre dàq koo bëre yàlla nañu yàlla bu incha allahu rabi wala 2 janvier ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. mais guy gi amu ngeen dara lu ngeen di xalaat ci moom jaar na INSEPS de. yàlla nañu yàlla may ndam le 2 janvier ci kàttanu yàlla ak mbaaxam waaw. kon yéen a ngi déggante bu baax. kan. rëgg a ngi déggante bu baax defe naa de. rëgg mënuñoo bañ rëgg chaque. yaa yor lépp. rëgg chaque ñu ngi déggante. pour bañ a wax ne chaque heure wala chaque minute ñu ngi déggante. waaw ay appel la ma ngi nii yaakaar naa ne bi may ñëw moom laa yaxal ba dugg si waat fii waaw. am na ñu bëri dañ ne lamb ci mystique ngeen ko teg. ñan ñoo ko teg ci mystique. am na ñu ko wax danañ yéen ci mystique ngeen ko teg. non loolu moom wax ju yàqu la loolu wax ju yàqu la xam nga dafa am loo xam ne munta ne yàlla sax ko nangu munoo lu ëpp cent vingt et nga doon bëreeg ñoom di leen daan tey jii nga nekk ci ñaata combat lépp ñu koy wax mystique loolu munta ne munoo jàpp ñëpp ci mystique ba pare lamb ba ñuy nettali naan diw mystique ak ñoomin seen yooyu dafa bokkul ci télé yi léegi ak site yaa ngi dégg lépp ne fang ngeen di gis ay kele benn combat ngeen gis daanaka fukki kele ak ñaar ba keroog muy daan ñuy waxati waxu mystique kon xanaa ay mystique kele la. <laughs> d'accord ci loolu daal yow. non non lamb suñu cosaan la ñun nag duñu bàyyi dara. ku gi xalaatoo mopp leen doole ci combat noo non loolu moom xalaatu ma ko. Ah. loolu xalaatuñu ko moom. côté xeex bi nag. non déggoo li ñun daal li ñu am am nañ ci moom bi yaakaar yàlla ñu yàlla fal cat. may ñu ndam lenn lu ñuy xalaat nag ci ku munti doon amul. kenn kay la mooy guy mooy guy gi. ñëpp laa wax. non guy gi la ngeen war a bëri. déggoo li ma la wax. danga naan ma kay aw ma lu ñuy xalaat ci guy gi. maanaam dama waaye du ñëpp. damaa bëgg a ngeen ak ñëpp. déggoo li ma la wax maanaam tey képp kuy takk ngemb ci senegal lenn lu ñuy xalaat ci yow amul. mbër yëpp yëpp. déggoo ma de képp kuy takk ngemb laa la wax ci Sénégal ñun amuñu kenn koo xamante ni am na lu ñuy mesurer ci yow. ba ci ay Balla Gaye ki Modou aa ba Z ba ci Cheikh Dioum. ñëpp ngeen yemale. ñëpp lañ yemale. kon daal jàpp ngeen ne ku ñëw war ngeen koo mën a defal bagaas déggoo li balaax ñun képp ku ñu am rek adversaire lañ la jàppee jeex na waaw. le 2 janvier nu ngeen di ñëwe ak lépp rek ñaan yàlla mu may ñu ndam. waaw lépp lu am ci lamb incha allah rabi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dara du des ginnaaw bu soobee yàlla waaw. fi may jeexal rek rek bàyyi na def defe naa de wala. waa xam nga rek moom lamb mooy liggéeyam mooy métier dafa nekk nag loo gis dafa am ay niveau rek ci lutte simple amatul lu muy prouver ci àddina loolu moom ku ne xam na ko li ñu war a lijjanti kay kan mooy def lu raw wala lu ëpp li nga xamante ni rek def na ko ci lutte simple munatu fee indi wala mu def fi loo xamante ni defu ko woon comprendre nga li ko yàlla dënk doy na sëkk dañuy sant yàlla guddeeg bëccëg ndax nag yoon wi ku ne xam na ne yombutoon fii moom géew bii ibamaar bii du ay caaxan mbër mu fi jaar jàll jaaraat fi jàll jaaraat fi jàll par la force champion gay doon ci bëre bëre dóor bi waaw fii mooy école bi gën a garaaw kon rek force daal day nekk champion loolu incha allahu rabbi kenn waxatu ko mbër yi xam nañ fii fii ay millions lañ fi teg te ñoom ay millions la ñuy wër rek kon fii moom képp ku fi ñëw di jongante boo ci génnee par force laa wax nag champion ngay doon ci lutte dóor lutte avec frappe loolu ku ne xam na ko. am nañu wax ne mën ngeen a jël pala mën ngeen a raw Yékini wala ngeen dem ba tolloog moom ci fi mu jaar ci làmb def na 16 ans wala 12 ans yoo xam ne kenn daanu. incha allahu rabi ñaanal nañu ko moom. Yékini Yékini ñaanal nañ ñu raw ko moom itam ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam lool te mu ànd ak wér gu yaram c'est le champion de tous les temps waaw. du question jàppale sax mais xam nga euh, bu ñuy wax ne góor ñi bëgguñu góor man dama naan bëgg nañ góor ndax li ko tax mooy saa yoo fi defee lu war a mun a tax nit ñi ñëpp jóg taxaw danañ jóg taxaw Yékini lenn rek lañ ko gëmee fulaam ak faydaam ci làmb ak fi mu yóbbu làmb ci fula ak fayda ak cosaan moom itam xëy na mu gis loolu ci ñun ñu bëgg a rek dox mais du question sax ay jàppale ak ñoom seen yooyu waaye xam nga jàppale bari na façon Leyti defee leen lii wala Leyti moytu leen lii rek loolu jàppale bu toll ni addina la. ah day def ak yéen loolu. waaw ndax mag la ci ñun frère la kon yaakaar naa ne lu ne xëj na suñu diggante. Géejawaay Caaroy dër bi bu nar a met waaw ñun daal li ñu ñaan yàlla mooy mu may ñu ndam rek maanaam ñun moom dañoo jàpp ne li ñu soxla muy kuroon bi amuñ ci der bi. kuréel baa nga parcelle. fu mu nekk rek danañ ko jëli kon amuñu derbi ak ken caaro yoo pikino géejowaayoo fu mu munti doon l' essentiel dañuy bëri rek di dem incha allah rabi ñaan nañ yàlla téye couronne bi dem jëli ceinture ba wan FC ak UFC téye ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. ah Modou Lo de moo yor bi te ku naqaree bëreel la. du problème. Modou Lo du problème. du Balla Gaye du problème. ñoom ñëpp ay champion lañ waaye duñ problème. Leyti Mbelo ngi. <laughs> jaajëf Babacar <laughs>